ginnaaw bi ñu leen yoo sant leen gërëm leen ngontum xibaar yi den koy doore ci bopp bi ak ka nga xam ne mooy si Ahmadou Bamba Dieng Cristiano Ronaldo xam ne bras da fer la nekk ak gone Manchester United yi waaye ba léegi buntu euh, feeñeegul Mouhamadou Salah nga xam ne am na sérieux problème digganteem ak gone yi nga xam ne ñoo supporters yi Reds yi ñu naan leen Liverpool problème yooyee du leen lu dul maanaam la ñuy xaar ci moom ëpp na mooy lépp loo xam ne Sadio maane daana ko def benn ñu ngi ko koy xaar moom mii di Mouhamadou Salah mu mën koo def la nga xam ni mooy fukk supporters yee ñoo ko sikkimu di xaar ci moom loole kon muy wane ni ah, perte bi nga xam ne perte na Sadio Mané loolee ba tey jii mi ngi naqari goney Liverpool yi nga xam ne fi mu toll nii ah, daanaka jafe-jafe lañ am pour nangu wala di seere la nga xam ne mooy demuk Sadio Mané Ah, beneen information mooy Cristiano Ronaldo mi nga xam ne mi ngi bësanteeg gone yi nga xam ne ñoo nekk gone yi Manchester eh, United yi ah, pour jóge foofee nga xam ne mooy United waaye nag président ba ak entraîneur ba ñoom ñëpp dañoo ko lankal loole nga xam ni ah, daanaka bu nu ko signé wul ci ay kayit du mën a ne kon Cristiano Ronaldo ah, xam naa ne baye bu mu ah, yemb ta def ndànk lijjanti loolee ci tekk ak tey waaye dem loole la bëgg tey it gone Manchester United yi ba tey ji lankal nañ ko loole kon naxante ci la toll seen digganteeg gone yi nga xam ni ñooy gone Manchester United mu nekk loo xam ni dañu ci dikkaat suwaa boo xam ni soit bu baaxul la gonek portugais gi def jaar-jaaram ba fii muy wax ak yow daanaka dafa pasar pasaree li des ci carrière am donte carrière bu baax la amoon ba nii nii waaye fii may wax ak yow daanaka nag xeebeel mi ngi bëgg a digg ci moom ci soit boo xam ne def na ko te neexu ko Habib Beye ba tamit mi ngi gën a dëggal boppam kàddu yi nga xam ne yëkki woon na ko ci Sadio Mané pour wax ni ah, bokk na ci ñi nga xam ne ñooy meilleur joueur du monde ah, bu fekkee du meilleur ah, loole ba tey jii tey la ko gën a wax tey it ma topp ci ki nga xam ne mooy ginnaaw Sadio Mané di ko supporter ca Bayern te yaakaar ci moom lu bëree bëri.